asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne tey dama leen a bëggoon a dama bëggoon waxtaan ak yéen ci danger bi nga xam ne moo nekk ci appel téléphonique euh, su ma ko waxee ne xam naa ñu bari dana dañ leen xaw a jaaxal mais euh, téléphone dafa nekk loo xam ne ni lu am ama lu am am solo la lu ñuy yombal suñuy mbir la ci jamono ji ni muy doxee waaye luy indi ay gàllankoor yu bari ak i jafe ci société bi. moom laa constaté ba loolu moo tax mën naa def benn euh, vidéo euh, pour joxe ci ay conseil joxe ci constat yi nga xam ne moom laa gis at yi ñu génn nga xam ñu baree bari lor nañ ci ay appel téléphonique yoo xam ne nii day jógee ci ñoo xam ne xamuñu leen waaw léegi nag euh, li ma bëggoon a mooy su nekkee ni nit ki daf laa woo te yow xamoo ko da war a jël say matukaay léegi nag naxaatekat yi. ak njublankat yi dañoo bari ci jamono ji ba nga xam ne nii ñoom téléphone euh, faay yi nga xam ne nii mën naa la wax noonu laa ko mën a wooyee wala pexe yi nga xam ne nekk na ci téléphone moom la ñu pour nax ñu baree bari ñoo xam ne nii euh, euh, amaana appel téléphonique bi bu ñu seen matukaay naxaat nax boobu ñu leen nax du demee noonu. léegi comme ni ma ko bindee ci page bi nii naxaatekat yi méthode bi ñuy utiliser lu ci ëpp li ma seetlu mooy dañuy mbubboo ay société par exemple surtout ci côté euh, lu mel ne opérateur téléphone yi wala lu mel ne ci côté transfert d' argent bi foofu la ñuy gën a euh, basé wu foofu la ñuy gën a jublu daal ni ni ma ko mën a waxee maanaam mën nañ laa woo ne la ñun la waa Expresso wala ñun la waa Orange wala ñun la waa Tigo wala ñun la waa Wari loolu lu ci ëpp loolu lañ lay def léegi nag suñu la waxee loolu ba nga gëm ko nag ñu dugal la ci ay détails naan la defal lii wala da ngaa gañ lii wala euh, demal ci. borom wari bi boo demee nga paas ma ko euh, fexe daal ba dox ci sa xel ba nax la euh, fexe ba dox sa xel ba nax la noonu noonu la ñu def léegi nag man li ma leen di conseil gis naa ñu bari ñoo xam ne ñii ñàkk nañ seen xaalis ñii yóbbu nañ leen ci police parce que yow mi yor téléphone bi dem ba ci borom wari bi nga jox ko waa ji nga xëye ab naxaatikat la mu nax la naxaale borom wari bi borom wari bi moom su retourné day porté plainte yóbbu la police bu ko defee indil la fitna léegi nag li ma leen di conseillé mooy bépp appel téléphonique bu ngeen jot boo xamee ki leen woo xamu leen ko wala am ngeen ci jeexi jaaxal coupé leen appel téléphonique boobu la coupé leen ko automatiquement bu dee société bu nekkee ne Expresso la nga am ci jeexi jaaxal wool waa Expresso fexeel ba am seen numéro officiel nga woo leen leerlu ba xam est-ce que appel boobu ci ñoom la jógee wala jógewul ci ñoom bu dee Orange ko woo leen ci seen numéro officiel Euh, parce que service bu ñu nekk am na numéro appel boo xam ne nii mooy numéro appel officiel am euh, que ça soit Wari que ça soit Tigo que ça soit Orange Expresso ak société boo xam ne moom la ñu mbubboo euh, képp ko xam ne woo na leen ci appel téléphonique def leen noonu loolu rek moo leen ci mën a musal parce que jamono ji instant bi naxaatekat yi comme ni ma leen waxee dañoo bari njublankat yi dañoo bari tey système bi dañ ko utiliser mu efficace trop trop trop parce que dañ ciy nax ay nit ñu di nit ñu baree bari par jour di lekk seen xaalis di leen yóbbu dugal ci ay problème yoo xam ne nii kenn xamul fu ñu koy fu ñu koy waxee loolu moo tax ma noonu daal naa jël sama temps pour gën a artu nit ñi ñu euh, xam téléphone ne lu am solo la waaye tamit xam ni nga koy jëfandikoo xam appel ki nga war a jox euh, ki nga xam ne nii moom nga war a boo ko recevoir appel te xamoo ko nan nga war a jëlee seen matukaay pour euh, mën a moytu ci loolu. waaw loolu daal léegi am na beneen façon naxin boo xam ne tamit dama ko bind fii comme sëriñu yi. ñooñu bi dañuy faral di woote naan la santal yàlla euh, damaa gis nangam ak nangam di la jéem a génneelu ay sarax soit nga lay jëm euh, ñu lay jéem a fexee di la influencer ba nga envoyé leen xaalis wala yu demee noonu yooyu yëpp comme ni ma ko waxee rek appel téléphonique daal ki woo xamoo ko mu woo leen mbubboo ab sëriñ wala muy mbubboo ab société wala muy mbubboo lu mu mën di doon raccroché sa téléphone delloo si sam xel xool ba xam est-ce que kii lim lay wax nii. noonu la wala du noonu bu ko defee nga jéem a leerlu ci ñi nga euh, ki nga xam ne mooy ndey mbili gi bu dee société société boobu fexeel am numéro appel officiel nga woo leen boo leen woowee nga leerlu loolu daal képp ku ko def moom néew ma doo mucc ci euh, naxaatekat yi ak njublankat yi waaye euh, mën naa ne boo ko defee daal en tout cas yu baree baree baree baree danga ko mën a moytu loolu nag laa ne woon naa leen ko indil comme information parce que yëf yi Euh, dafa takkar naa si boo xam ne ni ñi ni nax par jour dafa bari te ñoom ak euh, façon euh, fin wu ñu wu ne wu ne la ñuy dikkee mais li ko gën a li ko gën a mën a gaaw saafara daal nit ki la woo xamoo ko raccroché ko raccroché ko ne ko léegi après xaaral ma leerlu bu fa nekk di dugg ci benn détail bu insister ak fu mën di doon bu naree insister nga ne ko sëñ bi xaaral ma leerlu ci li ngay wax wala instant bi amoo sa temps xaaral ma ba ma am temps ma leerlu ci li ngay wax yu demee noonu wala nga euh, raccroché ko daal raccroché automatiquement jéem wut say information bu nekkee ne da ngaa bëgg xool ba xam ni information bu wóor la wala wóorut te lu ci ëpp mën naa xam ne à quatre-vingt-dix pour cent wala quatre-vingt-quinze pour cent ñi lay woo ay naxaatekat lañ te euh, loolu mooy seen liggéey ci la ñuy dox guddeeg bëccëg te saa yu ñu xëyee dañuy frenkulaay di woote à longueur de journée pour Euh, nax askan wi loolu moo tax ma ne woon naa jël sama temps pour sensibiliser képp koo xam ne nii dan la woo ci téléphone te xamoo ki la woo sa jëflante ak moom bañ a sori loolu daal mooy li nga xam mooy li la mën a musal ci euh, njublankat yi ak naxaatikat yi nga xam ne euh, bari nañ trop ci suñu société bi te ñi ñi ngi indi fitna ak coono yu bari ci askan wi. loolu rek laa naa lay ko indil comme information ci vidéo bi nii di leen jaajëfal.